mbokk yi jërë ngeen jëf tey ñu ngi toog champion Papa Sow bu ko xam xam ko diggante bi Moussa Dioum mu nekk champion yu parcelle ñu ngi ñaar di dafay dafay nuyu yëpp di jaale Moussa Dioum dañ koy jaale Sénégal yëpp di ko jaale monde lamb di ko a waa Parcelles Assainies particulièrement ak famem ñi ngi koy jaale Moussa xam na ni deewee na ndaw waaye wax dëgg yàlla ginnaawam dara ñaaw ci Moussa moom waaye ñëpp la woon dama naan Moussa bi ma koy xam ba maa ngi def CM2 boobu Moussa jàng ba wàcc dem fekk ñoom Mathieu Ferreira ñoom Ousa ñoom Lato ñoom Baboy Géej foofu loolu yàgg na na amee ay présent ci lay yem quoi kon moom ah Moussa Dioum yàgg na lool lool lool wax dëgg yàlla. ngeen bokk génération def na lu bari ci la woon quoi nit ku baax la nag nit ku saf xorom foofu fu mu toog kenn du kenn kenn du ñëpp quoi nitu jàmm la daal bëgg nga dégg quoi Moussa moom nit ku jàmm la nit ku baax la wax dëgg yàlla. ah ñu ngi koy ñaan fu mu jëm daal yàlla na ko gënal fu mu jëm waaw. démb bi nga la wooyee wax nga ne Moussa Dioum waaw mbéyteel laa man Papa Gueye moom ma eh Moussa Dioum ku am combat sax quoi moom ñu ngi saal quoi bu ne ko lu xew mu ne ma Moussa Dioum mu ne quoi ah, loolu la mu ne ma Moussa Dioum la bon loolu dafa yàq suñu entraînement yëpp dem wax dëgg yàlla wax dëgg kenn foogul woon ni yëguñu man yëgu moon feebaram yëgu moon dara quoi dama jékki-jékki rek mu daal suñu kaw mais ñu ngi koy ñaanal daal fu mu jëm daal yàlla ko jëm a marqué ci moom loo waaw Moussa moom nit ku baax la wax dëgg yàlla nit ku ku xewle ku mu yëg ni na nga sax dina ñëw sa xew lu mu mënti xew muy jàmm muy safaan ba nit ku baax la daal moom nit ku baax daal daal mënti wees nit ku baax wax dëgg yàlla ñu koy ñaan yàlla ko yàlla defal cat cat ba ko jiit si bàmmeel ba ñu koy ñaan yan kàddu ngay dénk ñi nga xamante ne ñoo di njaboot gi ak famille yi nga xamante ne tey ñoom ñoo des fii. waaw ñun de ay jullit lañ Moussa moom famille famille Moussa suñu famille la yaay Moussa Dioum suñu yaay la ay grand frère ñoom grand am ñëpp suñu ay grand lañ wax dëgg yàlla benn famille la. Mm-hmm. dañuy yàlla dañuy ñaan yàlla may ñu xolu muñ. te may ñu leneen lu leneen lu gën lii incha allah loolu la ñuy ñaan quoi. taxawaay bi aussi bi lamb am ñu gis ko à chaque fois bi bànneex ku am rek lamb yëpp ko jóg sol seen daal ñëw soutenir la taxawaay boobu nag ñu ko gisee ci lamb papa. waaw lamb daf ñoo daf ñuy lamb daf ñuy boole waaye war ñoo tàkkale. waaw lamb daf ñuy boole war ñoo tàkkale loolu sax ci da koy wan. képp ku xewle ci làmb rek moo xam moo xam safaan ba la moo xam bànneex la. di nga gis monde làmb sooy wax dëgg yàlla. làmb daal monde làmb daal mi ngi noonu quoi yàlla. waaw beneen monde la quoi. waaw. non yëguma feebaram yëguma ni Moussa Dioum wallaahi feebaram. ba li may am démb rek mooy eh Moussa Dioum ma man combat la ñu ne ma. waaw waaw loolu la ci am quoi ba loolu laa ci am waaw.